asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 26 juin 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko tey yëglekaay ba nag tey fa mu xëy génn Gaston la xëy seqal waxtaan moom nag la mu xëy di wax daal ne na dafa bëgg mu leer nañ na ko ñëpp dégg ne na daal fi nekk nii moom kase ba nga xam ne nii moom la Boy Niang di laaj moom la jàpp ko ko ngir mu a jàmmarlu ak nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 mooy wax ndax daa jàpp ne loolu moom du lu muy man ne na li am ba des nag moom ne na tey itam loolu bu ca Boy Niang continuer moom na ne pare na ngir boole ni moo di Gris Bordeaux loolu waxi ka xam ne ni moo di la mel ni ki nag Balla Gaye numéro moom moom fi mu nekk ni moom ba mu dugg daal daa mel ne xat na de wala boog safara suy jax-jaxi la jàppal yëgli kaay baa def boobu taxaw seetlu mel ni ki ci diggante Boy ak ka nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux foofa fa nga xam ne ni daal fa ka nga xam ne moo di Balla taxawee mel ni kon daal foofa foo nara tàng jër lay doon ñeneen ñoo xam ne nii moom seen diggante Gaston daa mel ni ki mbir ma leer na wala débat ba moom tëj nañu ko muy waa taay si nga ndax lanjang moo xëy tey di wax fi nga xam ne moo di sunu làng lamb lanjang daal la mu xam le na fi mu nekk nii moom seen diggante Gaston Mbengue ne na mbir moom béy wéy na mbuus maanaam daal d'accord nañu déggoo am na fa ne na booba débat moom nañ ko tëj ndax mbir moom jeex na jàkkoor nañu ak Gaston Mbengue ngir bëri ak ka nga xam ne nii moo di Bombardier lanjang moom moo wax lool moom nag mooy yore ka nga xam ne nii moo di Eumeu Sène keneen koo xam ne nii moom lekk na avance ba fara bëre mooy Franc Franc itam daal nee na leer na ko ne daal moom wala boog mu ngay dalal ay xelu supporter jàpp na ne daal ki nga xam ne moo di Tyson 2 moom nekkul ci moom problème te jàpp na itam da koy daan koo xam ne ni moom dafa bëri woon ba daanu muy ka nga xam ne moo di Libidor ci mois de décembre bi nu génne moom itam daal ñëw na itam di xamal ne daal li am solo daal mooy ñëw moom dina ko defaat te bu dellusee bii yoon moom dafa fas yéene nag wane ba boppam bu baax a baax a baax yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dalal ko moom li bi door ba nga xam ne moo nekk ca kayaar ñeneen ñoo xam ne nii moom jàppal ñu nga cay affiche yu mag a mag di ko lijjanti fas ko yéene taxawal kenn ka mooy Fallou Ndiaye borom njaay production sunu làmb xëy nañu ñu xamal ne day moom mi fi tëggoon TFP bi mu ngay préparé affiche boo xam ne bu rëy rëy rëy bu nganda ngand lay doon yëglikaay baa xëy tey wax nu ko ka ca des mooy Birane nduur bu TFM moom tamit day yëglikaay bi xamal nañu day mu ngi ci affiche bu mag a mag a mag fas ko yéene tamit taxawal yëglikaay bi ba tey moo xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag daal fi mu nekk nii kon làmb ja daa mel ni daal jax daal nar na koo def bu baax a baax a baax buñ fa jógee nag moom dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca record record itam dafa xëy tey ñëw ci ka nga xam ne nii moom moo di jàppal combat bi taxaw muy diggante Franc ak ka nga xam ne nii moom moo di Tyson 2 mel ni ki nag ñoom ñaar waxtaan leen jël ku ne wax nga ka nga xam ne nii daal moom moo di Franc moom li moo xam ne daal Tyson 2 si boppam sax moo wax moom daal ne na li ko leer moom Franc moom jàpp na ne moom munu koo jaaxal daan ko la koy def Franc ne ko loolu da yaa ko wax waaye man moom li am ba des daal mooy daan la moom dama la koy def ba mu leer nañ loolu mooy wax ja ba tey ca record bu nu fa continuer ñoom ñaar itam mel ni ki ñaari mbër lañ yoo xam ne daal équipe nationale ku ci ne ci ñoom ñaar jaar nga fa am loo fay def yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu ci diggante ki nga xam ne ni moo di Franc ak ka nga xam ne moom la war a bëreel muy Tyson 2 leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na tey andil ñu ko ci ab seetlu maanaam Alioune Sarr équipe am ñu demee xar ban xar kanam la CNG bi war a amewaat wala boog ban doxalin wala ban taxawaay lañ ci war a am loolu war a xëy tey ñëw dina ko wax waaye ñun tey fa nuy tëj mooy tiis wi nga xam ne dal na ci réew mi diggante démb ak tey ak génnuk àddina pa Malick si mu nekkoon porte-parole ñi nga xam ne nii moom mooy famille waa kër si di Alhaaji Malick Sy ñuy ñaan yàlla yal na yàlla yokk ay leeram yóbbu ko ca àjjana yi gën a kawe boole kook maamam ya ak nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di waxaat tamit xalifa ba nga xam ne nii moo nekk ca cene ba di maam si Ahmed Tidiane Seck moom itam bàyyee koo fi tey ñu ñaan yàlla tamit yal na ko yàlla yéege ca maqama yu kawe ya yóbbu ko ca barsàq yonent bi sallallahu alayhi wa mook ñañ fa fekk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 waaw kullu nafsin zaa'iqatul mawtin ci yàlla ñu jóge ci ci la ñuy dellu ndax loolu kàttanu suñu borom la namm teefam la ci ay jaamam ndax moo ñu fi ne daf ñuy jël démb ak tey nag Sénégal nekk ci lu nga xam ne ni wax dëgg yàlla naqar la parce que heure bi démb lañ ñuy tàgg ki nga xam ne moom mooy Pape Malick Sy doomu Serigne kër si comme niñ ko xamee di caatam yàlla jële ko fi démb muy lu tiisatis ci réew mi nekkit loo xam ne wax dëgg yàlla ah newuñu parce que mën nañu sax daf ñu bett ah, wax dëgg yàlla mais nag yàlla mooy dogale noonu ñu nekk ci loolu ah yàlla def balaa muy mat 24 heures ki nga xam ne ni moom mooy maam si Ahmed Tidiane Seck tamit di xalifa cene ba muy tam yàlla jël ko mel ni kon rek yàllaay wane dooleem di wane kattanam di wane sañ-sañam ci ñun loolu nag moo lay wan ne kon daal yàlla nañu yàlla taaf si barke mag ñooñu waaye yàlla na tamit dee nekk seen nooflaay te itam am nañ ci yàqin ndax ay nit yi diine la ñu woon ay nit yi siraatal mustaqim la ñu woon nit nañ ñoo xam ne nii salaatul faatih la ñuy dund maanaam mbaax rek la ñuy dund ci la ñuy dox di ci wax di ko digle kon li am solo daal ñun ñi fi nekk di ay taalibe ñoo war a gën a rek tënku ci seen ay ndigal ndax ba des fois damay dégg ay kàddu gaay naan sama classe gi nga xam dañu xaw a saagan naan euh, bu fi maam Abdou nekkoon wala bu fi sëñ Abdoulaat wala nangam wala nangam pourtant ñooñu ñu ngi parce que seen a ngi fi ba tey te lañ daan wax ba tey ñi fi nekk nga koy wax sëñ Babacar Sy Mansour loolu lay digle sëñ Mountakha moom lay digle ka nekk ci moom lay digle ah maam Ablaye Thiaw ak ka nekk Medina Baye ak ñëpp kon kay li fi nekk mooy rek yàlla nañ yàlla may ab xol ñu mën di jëfe seen i digal te bàyyi seen ter ndax ay njariñ rek la mais daal ñu ngi koy jaale képp ñu ngi leen di jaale kilifa yooyu daal képp koo xam ne ni doomu Sénégal nga ndax ñooñu dama naan nekkaluñu fi ab tarixa wala diine kese mais dañ fi nekkal askan wi boo xoolee seen ay wax ak seen ay kàddu seen jëflante loolu ngay gis kon yàlla yàlla tax ñu ci seen ay barke yàlla yokk seen ay leer barke yonente bi sallallahu alayhi te am nañ ci yàqin ndax itam mbaax rek moom solo te ci lañ sax bu wuyu seen borom Babacar naan amee rek nu wax ne aussi que kàddu bi rafet na ni commencé nag ak sunu laam sunu laam na dafa xëy encore dalati encore ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbengue ginnaaw daal bu mu annoncé daal euh, tournoi bu mu nar a organisé ak combat yu mag yi mu nar a tëgg chaque jour daal journaux yi si ñoom si Gaston Mbengue moom la ñuy xëy comme li ñuy wax rek temps yi moom moom moomee vent Gaston moom ku ko xam-xam ne ak franchise am ak franc parler lu mu wax daal mooy nee na lii cachet bi nga xam ne moom la Boy Niang di laaj fas yéene wu ko fay parce que nag déggoon nañu tamit ne gas euh, Boy Niang mi doon laaj plus de 100 millions pour nga xam ne bu mu bëree ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye Gaston moom nee na ko du rey boppam si tëgg combat rek pare bare si su si paree des si ay bor. waa bët de olof na du yéen waaye xam na la bopp attan li am solo nag mooy euh, mbirum jënd la ak jaay Gaston defe naa tey ci làmb euh, comme li may wax rek amatul lu ci ciy pour man. xëy na nag lam mën na ci situation mu ñëw bokkaat ñoo xam da nga ko bëgg a taxawalaat soxali te yaakaar naa loolu mooy taxawaayam bi ko indi nii la ca des nag mooy combat yi bëgg itam amateur yi bëgg nañ ko bari nañu ko bëgg muy Boy Niang Balla gay wala muy yeneen combat yi ci des ak yi ci des yëpp mais bu ñëwee tey ci le cadre Boy Niang comme boobu muy wax nit ki moom li ngay def da nga koy man attan ko muur ne boo ko defee di nga ci génn waaw yaa ngi dégg Boy Niang tamit nekk na mbër mi nga xam ne nii moom mooy bëre am na droit kat ne moom kase bi laay fayeeku parce que ci lii laa war a mën a bëri ak Balla Gaye numéro 2 loola moom loola nag waxtaan lay doon ci digganteem ak staffam ba ko yor ak promoteur ba nga xam ne moom moo bëgg combat bi ñu tombé d'accord maanaam déggoo ci prix ba mën a bëre bëre ma mën a am su loolu mënta am tamit ñu seetiwaat leneen rek parce que comme li may wax rek làmb la du jeex maanaam adversaire bi danga nga koy mën a am boog rek kii mënta ne ngay jël kële boole ak kële yaa ngi dégg waaye lu ci mën a xew daal mooy combat bëgg nañ ko yi taxaw waaye la ñuy ñaan mooy yàlla bu si mbër mu gaañu waaye yàlla bu si promoteur bi gaañu parce que tamit kiy tëgg di bailleur bi su gaañoo mbir yëpp li ñuy wax rek tëggum dënd ak semmañ lay doon neex benn naqari benn te loolu souhaité wuñ ko buñ sañun kuy tëgg da ngay ñëw ci làmb continuer di tëgg parce que la koy waral nag mooy ngeen waxtaan ba jéggoo yéen ñaari parti pour que mbir yi mën a jaar ci aw yoon Gaston sax mi ngi doon leneen nee na su fekkee ne Boña day insister di persister ci cachet yu bëree yu kawee yi muy laaj fas yéene na tëgg combat revanche diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom may Balla Gaye de. waaw loolu tamit neex na de boob ba tey dafa neex revanche su Balla ak Gris waaw mooy li ma wax sànq rek soo meebee lii àttanoo ko bàyyi ko xam ne du sa yëf nga meebi la ca des rek la nga jàpp ne moom nga àttan bu fekkente ne Boy Niang la mu koy laaj jàpp na ne loolu mënu ko. yaa ngi dégg bu ko neexee am na droit dem xooli Gris Bordeaux ak Balla Gaye wala mu xooli Balla Gaye ak keneen wala mu xooli keneen ak keneen parce que mbir moom yaatu na combat yi a mën a taxaw bëri na pour man actuellement waaw. ki nga xam ne mooy lajaan démb tamit sunu laam dalaloon na ko tey tamit dalal na ko parce que démb mi nga wax ni que am na promoteur bu leen contacter pour nu bëree ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Bombardier moom tamit nee na. moom ak euh, Eumeu Sène ak Gouye Gui ñëw na tamit di leeral nee na daal seen kàddu jox nañ ko ki nga xam ni moom mooy Gaston Mbengue moom la ñuy xaar daal pour jot avance bu mën a sëgg bëre incha allah waaw foofu daa mel ni kon wax ja leer na loo ci mën a dégg lañ jàng leeral na parce que bu nee tey Gaston moo ca des moom la ñuy xaar ndax déggoo am na ba pare pour ñu war a bëri ak Bombardier moo lay wan ne comme li ma la waxoon rek combat yi mën a taxaw na te loolu dañ maanaam bu amee dina neex amateurs yi parce que li tax mooy revanche la si Bombardier bi bi ci ñaari yoon bi mu ko yore woon ama Sène ko nangu ci moom kon defe naa dina soxla revanche te itam mu ngi toll fu nga xam ne tey jege na retraite làmbam kon dana soxla am combat bu baax te Eumeu Sène adversaire bu baax la waaye nag daan ba wala kuy daan moom loola fa la mbir ma ne ndax ama itam dafa am ci lu mu jóge te bëgg na tamit wanewaat boppam ci làmb des ci desin bu baax quoi hmm. li eh, keneen ki nga xam ne sunu laam ñoo ne si moom mooy eh, Balla Gaye le lion de Guédiawaye ni ñuy xamal ni moom daal Balla Gaye fan yi daal moom mooy moomee vent parce que ki nga xam ne mooy Boy Niang bëgg na bëre moom Gris Bordeaux aussi ngi koy laaj revanche moom daal gëmul sax ni loolu revanche nee a leeral que jàpp ni daal Balla Gaye ko na waaw ba tey loolu moo lay wan ne kon actuellement taxawaay ba xam naa moo baax rek parce que tey yaakaar naa ne mbër yi mu mën a bëreel bëri na moom Balla Gaye muy Gris Bordeaux muy Boy Niang muy Tafatine muy Bombardier xam nga ñoo ñëpp ay adversaire lañu moo lay wan ne làmb moom boo ci nekkee loolu dafay am solo parce que tamit sportif da nga war a bëri adversaire yoo war a def jànkonteel te defe naa loolu mooy taxawaay bi nga xam ne moo tax tey ñuy réclamer Balla Gaye ak adversaire yu bëree bëri pour moom ni ñëw nag si euh, sunu làmb ak aussi euh, li nga xam ne mooy record ñoom ñëpp tey ñëw nañ ci ki nga xam ne mooy Franc Franc daal lu mu lay lu muy assuré daal supporter yi na moom am na yaakaar ne kii di Tyson 2 dina ko daan waaw loolu day mooy li nga xam ne nii moom la Franc wax am na yaakaar dina ko daan waaw loolu nag euh, lii mo li yaakaar bi daal mooy liggéey te Franc it lu la waaye wax di wax di ku ne xam ne ni mbër la bi nga xam ne du ñëw ci làmb nga ne entraîné wul wala sérieux wul wala bëggul li muy def loolu moom gi dalagu ko waaw yaa ngi dégg man na na wër xale boo xam ne daal ci li ñu gis moom sérieux na trop trop trop trop par rapport ak li muy wane ci làmb boobu ba tey moo xam ci li affaire frappe bi la moo xam ci li simple bi la kon yaakaar naa ne bu rassuré ay supporter am ay supporter itam seen xel war na mën a dal waaye itam euh, la ñuy waxoon démb la ñuy waxaat rek dafa am adversaire de taille nag bi yoon waaw dan nay am ay adversaire mais bi yoon moom adversaire de taille am parce que Tyson 2 euh, dafa nekk mbër mu xam ne nii mbër mu mën a bëreel lay Kumba Fall te yow xam bu baax li may wax mbër bi nga xam ne itam man na xeex te itam nekkul mag kon yaakaar naa dama naan Franc daal daan na am adversaire de adversaire yëpp adversaire lañ waaye nag bii moom adversaire de taille la moom. dafa yab ah non adversaire dëggantaan la am de loolu kañ maa ko wax. <laughs> Eh, ki nga xam ne mooy Tyson 2 mi ngi koy tontu tamit si record si record si xalima abunu moom daal nee na xam na naka lay def daal pour daan ki nga xam ne mooy Franc. waaw mooy li ma la wax rek fi mu nekk nii ku nekk yaa ngi commencé di natt sa morom. ba loolu lépp nattante la fi mu nekk nii wax jooju ngay dégg ku ne kii di wax sànni fii kii wax sànni fii waaw Tyson 2 mu ne xam na naka lay def pour daan Franc waaw loolu moom da ko war a xam parce que bu ko xamul yaakaar naa du sotti waaw Franc it nag daan ko yombul waaw daan ko yombul de waaw parce que gis nañ bu baax a baax waaw noo ad waaw adversaire boo ko indil maanaam nit ñi dañ naan jaru ko xamoon nañ ko waaw kon Tyson 2 itam noonu loolu ma wax si moom na jàpp ne mu ngi bëri xale bu bëgg dara boo xam ne nii bu am ambition la bu sérieux ci lu muy def. moom moo tax ba léegi déggul mu ñal sax. ah waaw gis nga kon moo lay wan ne sérieux na. waaw ah, kon daal jàppal ne jooju lamb moom ah lamb pire la waa Equivox tëgg. Euh, abu nu tam mi ngi xamal si record ne tey jii su fekkente CNG jóge nañ fi nu changé beneen euh, beneen équipe nu euh, jëlee fii ki nga xam ne mooy Alioune Sarr ban équipe la nar a ban équipe lañ lañ nar a indi pour teg fi équipe bu bees ban équipe daal moo war a remplacer tey jii Alioune Sarr voilà. Ah, waaw loolu day xanaa moom balaa ñu ci mën a xam dara moom dafiy jóge ba pare rek. bu fi jógee yaakaar naa ne eh, du nekkul naa leen saar équipe am dañu fiy jógee làmb arrêté déedéet war na mën a ne bu ñu fi jógee làmb day continuer ban équipe la ñuy indi nag loolu moom bu keroogee waa ahlu làmb ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo seq mbir mi pour man ñoo ciy toog waxtaan ci mais li ci am solo daal yal na yàlla def daal ka nga xam ne moom mooy ñëw wala équipe bay ñëw yal nañu def lu supérieur li nga xam ne moom la équipe bu Alioune Sarr def parce que Alioune Sarr ak a xew mu liggéey am na lu des waaye ñu ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy ñëw ci lu nga xam ne ni ñaa ngi koy ñaxtu bopp ba tey ñu mën koo defar ba nga xam ne nii su ëllëgee waxuñu lépp parfait à 100 pour cent de waaye au moins sax ñu am la ñuy def. Babacar nu jeexe nag ak ba tey ak sunu laam sunu laam ki nga xam ne mooy Fallou Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Birane Ndour bu TFM ñu ngi préparé euh, ay affiches yu neex a neex Fallou Ndiaye mi ngi démarché ay combats yu neex a neex kii aussi di Birane Ndour TFM aussi mi ngi démarché ay combats yu neex a neex xanaa rek nu ñaan euh, Babacar corona bi mun fee jóge amateur yi kontaan Babacar mu doon yuuxu nag. waaw wallaay dama ko nam de ndey Kumba Fall nam naa bu leen ko jaawale de. lay lay la laa yàgg jëlal lii loolu dama ko nam barki Serigne Bamba nam naa lool lool wallaay la siim kon daal di ñaan yàlla rek xam nga loolu ñuy gis ci journal bi yàlla na ko yàlla def muy lu réussir Fallou Ndiaye moom defe naa ne itam tàmmali ay affiches yu neex defe naa bu ñu ko déggee ci affiche bu mag ñun du nekk lu ñuy bettan parce que li mooy lépp lu mu indi si làmb si amateur yi jox leen ko ku ne lay xam ne affiche la yaa ngi dégg moo xam affice espoir la moo xam affiche ku ne gis na TFP bi mu koy def ñëpp dañ noon mënu woon ne mais réussir na ko Birane Ndour tamit defe naa TFP entertainment ku ku ne yaa ngi fàttaliku Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène lamb ju neex la woon tey bu ñu gisaatee Birane Ndour ñëw ci turu TFM ñu ne mu ngi démarché affiche yu mag defe naa loolu itam duy doon lu ñu bettan ah, parce que TFM loolu defe naa ne ci làmb moom buñ ci duggee tëgg ci jaaxar naa loolu war a mën a am la li ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla def mu réussir parce que làmb te fi mu nekk nii soxla nañ mu tëbaat beneen alir parce que làmb dafa am lu muy maanaam lu muy def ci Sénégal ci koom-koom bi ci dal bi ak tamit ci pression bi nga xam ne waaw bégle voilà dafa nekk loisir boo xam daal sénégalais yi bëgg nañ ko trop trop kon bu ñu sañoon wax dëgg yàlla at mu jot bu saison ubbee ba ba muy tëj dañuy am ay a ci la newoon leen tàggoor di leen jox dig daje lundi incha allah balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu sama xarit euh, sama sama seex muy astandine DG Brahma Chéri Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies di nuyu samay bourchou Mame Diarra Penda ak ki nga xam ne mooy bébé euh, euh, euh, Penda di nuyu aussi ki nga xam ni mooy Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie di nuyu sama doomu day tamit Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou Diamaguène papay Siteu Babacar. waaw di nuyu ñëpp comme ni nga ko waxee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre rek à travers le monde fu ñu mën a nekk ñoom tuuti yaay Sarr duñu leen fàtte ñoom Khady Rose Ndiaye xam nga ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. Asi Ndiaye moom tam depuis Italie Asi borom noo ak sot sama soppe boobu Aasibu xarañ la moom tam di ko jaale ndax ku ne xam na ne moom mu tarsi din la ndeysaan di taal bi Cheikh bu mag maa ngi koy jaale Pape Malick Sy di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre Youssou tamit du ma ko mën a fàtte maa ngi koy jaar bu baax a baax di nuyu waajuram son papa Ibrahima Ndoye ak yaayam Penda Diawara di nuyu tamit magam bi nga xam ne moom lañ doon may démb borom kër muy Mami Ndoye xadi di ñaan yàlla sëy boobu yàlla na ci yàlla def njaboot bu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii gis nañ leen fa dem ñu daje fa ak ñoom ku mel ni Saliou Khoule maa ngi daje nañ fa ak gaa yëpp ah Big Pato mi Lamine moom tamit mu nga fa woon di nuyu gaa yëpp daal di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre kot su jamono tamit su ma gaayan la maa bu baax a baax di nuyu soxnaam xam nga di nuyu ñëpp ñi nga xam ne Ndey Kumba ñu ngi ñuy suivre ci fi nga xam ne ni moom mooy Leewtoo mais mention spéciale daal ki nga xam ne ni moom mooy Khady Rose Ndiaye ba leen incha allah.